sëriñ moor binta Touré sëriñ moor binta Touré mi ngi gane àdduna ci atum 1844 ci dëkk bii di kër ma jóob Touré kër ma jóob Touré mi ngi ci wetu dëkk bii di Kilmaxa ci région de Thiès sëriñ moor binta Touré doomu sëriñ Ibrahima Touré la ñu gën koo xamoon ci sëriñ Tafsir Touré ndax jàngalekatub alxuraan la te ku ko mokkaloon la waajuram wu jigéen mooy soxna Binta Jaane Silla moom amul kenn ku mu bokkal waajur wu jigéen di soxna binte Jaane Silla lëmi kon benn doom la ci waajuram wu jigéen wi bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram sëriñ ibrahima ture tafsir mi mooy ki ko jàngal alxuraan kon ci biir kër waajuram la jànge alxuraan ba géeju fa lool ginnaaw kër ma jóob ture mii nag jóge na fa demaatoon ci beneen dëkk bu ñuy wax ture ndogal ture ndogal mi ci wetu dëkk bii di kokki njaageen foofu la nekkoon foofu itam la amoon nag wóllërante ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ba ñoom ñaar nekkoon nañ lii di ay xarit wala ay wóllëre Tanor Binta Touré daana seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim laata muy dem ci géej gi ba ci dëkk bii di daaru salaam ñëw na fi ay yooni yoon ziyaare si ku baax ki bi sëriñ tubaa seexul taxawalee yoonu murit ba jóge mbàkke kajoor ñëw mbàkke bawal sanc dëkk bii di daaru salaam ñëw sanc tuubaa jóge fi dem mbàkke baari jolof dem ci géej gi ba ñibbisi ci atu 1903 nag sëriñ Mor Binta Touré mi ñëw na ziyaare si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim waaye booba taxagul nag mu nekkul lii di murit waaye wóol la réew sëriñ tubaa Touba Seexul Xaddiim la ci atum 1903 bi Sëriñ Touba Seexul Xaddiim ñibbisee amaat fi ay xat-xat tubaab bi duggaat ci yóbbu ko ci réew mii di gànnaar gànnaar googu Sëriñ Mor Binta Touré dem na fa ziyaare ji ku baax ki Sëriñ Touba Seexul Xaddiim waaye lépp rek ci akol lëre gu leen boole ñoom ñaar gànnaar googu sax ba fa Sëriñ moor Binta Touré mii demee àndoon na fa ku ñuy wax Sëriñ Mor Aminata Touré mu nekkoon ñaareelu xalifaam ak ñeneen ñum àndaloon ca yoon wa cant sëriñ tubaa seexul xaddim jóge gànnaar ñëw ci yéen jolof sëriñ moor binta turé nag doo ko jaayantee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci dëkk boobu di ca yéen jolof mu daa di nekk nag lii di am murit sëriñ tubaa seexul xaddim tarbiye na ko seexal ko itim dolli ca ginnaaw bu mu jotee ngërëm ci dëkk boobu di ca yéen jolof delluwaat ca dëkkub cosaanam di ture ndogal daana fekk si waat ca yéen googu nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko ziyaare si kii di sëriñ moor binta turé dawul lekk lii di ndawal mu am bis nag mu dem ziyaare di sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci ci yéen Jolof àndoon ak doomam ji di sëriñ Moor Aminata Touré bi mu eggee waxtu guddi la sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim berndeel ko lii di cere jo am lii di ndawal mbooloo mi sëriñ Moor Binta Touré àndaloon biñ xéwloo ba noppi doomam jooju di sëriñ Moor Aminata Touré moo jël bool ba delloo ko ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Seexul Xadiim di ko wax ne baa xéwlu ngeen mu a ko waaw xéwlu nañ koy mbàkke bàll waaye man kay sama baay du lekk li nga xam ne nii moom mooy xaadim di ko wax ne boo demee nga wool ma sa baay bi mu ñëwee la ko seexul xaadim di laaj sëriñ Touré lan moo tax doo lekk lii di ndawal ak soow sëriñ Mor bint Touré di ko wax ne dama léerut ba xam gàtt ba gàncax ga mu lekk ba tax mu mën a am ndawal gu duuf ak lii di am soow lew na waaw wala déet seexul xaadim di ko wax ne sëriñ Touré de lekk ci ndawal gi tey naan ci soow mi ma di la xamal ne lépp loo ragal ci àdduna ak àllaaxira suñ boroom muccal na la ci ginnaaw ca yéen jolof sëriñ Tuubaa seexul xaadim bàyyi ko dafa ñëw njaareem ci 1912 sëriñ Mor Binta Touré daana ñëw njaareem di ko ziyaare si waaye booba nag su paree ma ngay dellu ci dëkk bii di Touré ndogal ndax kat foofu la nekkoon doon fa liggéeyal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ba ci atum 1913 bi Seexul Xaddiim ñëwee njaareem nag joxoon na mag ñu bari ndigal ñu dem sanc lii di ay dëkk sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim joxoon na ko ndigal mu dem sanc dëkkam bii mu tudde Xaybar ñu gën koo xam ci Touré Faasa ñii ñoo fa nekkoon comme ay jëwriñu sëriñ Mor Binta Touré sëriñ Mouhamadou Diop Mbawoor ak sëriñ Ibrahima Diop ak sëriñ Sidi Diop dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax muy ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi mu nekk fay liggéey di yar ak a jàngale lépp lu fa ñor nag mu yit ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ci njaareem boole ko sëriñ tubaa Seexul Xaddiim boole woon na ko maam Cerno Ibrahima Faati ngir di ko wax ni na nekk sa jëwriñ ni mu daa liggéeyale ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim noonu itam ni la daa liggéeyale kii di maam Cerno Ibrahima Faati ba ci néeg bi mu mujjee takkal bi mu eggee yooyee weer lañ ci teg mu génn lii di àdduna ñu ràññee woon ci jëwriñ yëpp ku ñuy wax sëriñ sii di Diop ci bi muy takkal maam Ceerno Ibrahima Faati néegam yooyu sax caatam mi mujjee juddu ci njabootam di jigéen foofu sax la ko xibaar bi fekk ñu koy wax ne kii di soxna Fatou ture de mucc na am na sax doom bu jigéen mu leen di wax ne de liggéey bii ma maam Thierno di liggéeyloo moo ma gënal fopp may dem di tuddi doom ci la yebale nag kii di taalibeem bii di xaritam sa soon rëkk ci moom di Serigne di Diop di ko wax ne soo demee wutalal ma doomu soxna Fatou ture moomu aw tur di ñëwee nag ci la ko tuddee doomu seexul xaddim bi di soxna moomi natu Mbàkke kon soxna moomi Touré la mujjee am ci doom ci 1924 ñetti weer lañ ci teg ginnaaw bi mu génn at àdduna maam Cerno Ibrahima Fatim Mbàkke ndaamal daaru wéy di nekk jëwriñam ci yoon wi ndax kat moom la ko ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim booleel ne ko Mor Binta na Cerno nekk sa jëwriñ loolu itam tax na saa su ne daana dem di ko nemmeeku boole koog di ko ziyaar ba am na bi sax mu ànd ak doomam jooju di Sëriñ Mor Aminata Touré dem ziyaara ju maam Cerno Ibrahima Fatim Mbàkke ndaamal daaru ci daaru muxti naka te mbub mum sol ñetti jiit ña nga ca bi mu eggee daaru muxti waxtu julli jot maam Cerno Ibrahima lii di julli ci diirub julli bi nag jiit yi kenn ku ne ma nga doon def li di liggéeyam ci misaal doon ko fett mu ne cell rek ba julli ga sëlmal mu toog itim ba maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ñaanal ko bi ko maam Cerno Ibrahima Faati ñaanalee bañ génn lii di kër ga la wax doom jooju di sëriñ Moor Aminata Touré di ko xamal ne sama mbub mi daal xoolal ma ko dafa mel ne am na lu ci nekk ginnaaw bu mu summee mbubbam ba sëriñ Moor Aminata Touré mi doomam yëlëb ko la jiit wadd xamal ne dafa mel ni daal ju ci jenn ndax kat jenn ju ne mu tolloon ma nga doon def lii di liggéeyam ginnaaw bi nag lañ ko yëlabaat yeneen ñaare ya wadd ginnaaw bi nag maam Cerno Ibrahima Faati yëgoon na ne daal keroog bi ñuy jiite julli sëriñ Moor Binta Ture ñetti jiit fett nañ ko ci julli ga maam Cerno Ibrahima Faati woolu kii di sëriñ Moor Binta Ture di ko laaj loolu lan la ci jublu woon sëriñ Moor Binta Ture ne ko dégg naa ne de suñ borom wax na ne génn julli gu ñu nangu rek doy na lii di jaamu yàlla te man léeruma ba xam julli gi gii nga ma jiitee mooy gi mu nangoom déet loolu moo taxoon nag ma sàmmoon ko ba jéem koo eggale bi may julli nag saytaane bëgg ma koo yàqal te lool moom duma ko nangu lii rek moo tax ma toog bàyyi leen ñu def seen liggéey ba tey ci kóllëre gu leen sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim boole woon moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ngir mu nekk jëwriñam sëriñ Mor Binta Ture daana def weer wu jot mu dem ñaari yoon daaru muxti ngir ziyaara ji maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ngiru turee yàgg moom wala yàgg daal ci jotaayam ba am na nag mag ñu ko seetlu woon ba dem ci maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne lan moo tax sëriñ bi sëriñ Moor Binte Ture mii daal bu ñëwee ziyaare si bala fee def dara rek nga ñaanal ko mu dem maam Ceerno Ibrahima Faati di wax kooka di ko wax ne de sëriñ Ture mii di ko wax ne sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim da da koo jox mu ngoor ba feesal te ku sàggan mu nangu sab ngoor te man nii na Ceerno Ibrahima nangu Moor Binte di nangu sama ngoor bi ñuy laaj mag ñi ay soldaar sëriñ moor binta Touré yabaloon na doomam jooju di sëriñ moor aminata Touré ak sëriñ moor silla ñoom ñaar la sëriñ moor binta Touré yóbbu woon ci guerre mondiale 14 18 bi sëriñ Touba seexul xaddim moo leen jullee ci njaareem ñi ngi jóge senegal ngir dem ca ger mondiale boobu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru ut ci atum 1914 ñi ngi ñibbi ci Sénégal ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru ut ci atum 1918 tikke bay wane ne dem nañ ca guerre ba dat bii moo ca nekk xam ngeen ne maam Cerno Ibrahima Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Tuubaa doon na ko liggéeyloo quartier boobu sëriñ bu Mbàkke dëkke di Tuubaa Daaru Raxmaan ñu gën koo xam ci péncum sëriñ bu Mbàkke sëriñ Moor Binta Turé mi bokkoon na ca mag ña maam Ceerno Ibrahima Faati wowoon ca liggéey ba ngir mu ànd ca ca booba Seex Masàmba Mbàkke mi rakku maam Ceerno Ibrahima Faati itam ñëwoon na ca doon ca barkeelu na ko wax ne sëriñ Turé demal toog te dallu ndax kat li nga am doy na bu Seex Masàmba masaa dem leen ma sama gaal ndax lekkal ma kat taxuta regg foofu ci xaybar am na bis kii di sëriñ moor binte turé fopp taalibeem bu ñuy wax sëriñ ibrahima jóob mbawoor yónni ko ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci dëkk bu sell boobu di njaareem jox ko lii di fanweeri dërëm ak ñett di ko wax ne soo demee nga joxal ma ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ ibrahima jóob mbawoor moom bi mu egsee laajte ku baax ki ñu ne ko ay fan a ngi nii daal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim gisuñu ko ibrahima jóob mbawoor moom sëriñ moor binte Aminata yónni woon keroog bi mu eggee dafa dogu ne bu fekkee daal li muy yaakaar ci sëriñ Mor Binta Touré ci diggante ak yàlla mu ngi ci moom yàlla na gis ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim bu fekkee ne nekku ci nag ah mu wëkkiirlu rek ci yàlla nes tuut ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim ubbi daan ne ana kooku mu ne ko mën a Ibrahima Diop Mbawoor Mor bint Touré bu xay Xaybar moomu yónni woon ci yow lum la jox mu ne ko ngise bi Seexul Xaddiim di wax kii di Ibrahima yi bisu tey bi képp képp koo xam ne nii fekk na ma fii ma taxaw nii li nga doon sàkku am na ko sëriñ Ibrahima Diop Mbawoor bi mu ñëwee Xaybar fekkaat fi sëriñ Mor Binta Touré di ko wax ne li ma seexul xaddim wax de bala ma la koo wax danga ma neexal keroog sëriñ Mor Binta Touré ab gàtt la ko rayal Ibra Diop Mbawoor di ko xamal ne sëriñ Tuubaa seexul xaddim de nee na lépp loo xam ne nii doon nga ko sàkku ci addiye ji am nga ko sëriñ moor Binta ture di xamal Ibrahima Diop Mbawoor di ko wax ne addiye ji de li ma ci doon sàkku ci ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim mooy bépp jullit ashadu an laa ilaha illallah jàmmi àdduna ak allaaxira nga am ko ci àddiye jooj sëriñ moor binta ture mas naa ànd ak kii di sëriñ ma ñaaw silla ñu dem ziyaare ji ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci njaareem bisub keroog bi ñuy dem kooru ngàtt na la ñu lu ñu eggee ba tekki seeni fas yëg lu ku baax ki sëriñ tuuba xam ne ñaar ñooñu ñi ngi fi sëriñ tuuba seexul xaddim yónnee woon na leen ak xéewal waaye ñoom ñaar daal kenn ku ne xool nga sa moroom ndax kii silla la sant kii ture la sant sëriñ Mor Binta Touré moo wax ne sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mi daal moo ñu gën a xam suñu bopp te comme yónnee nañu teraanga ñu xéewloo ba noppi nag lañ dem ziyaare ji ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ginnaaw bu ñu ziyaare ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba noppi sëriñ ma ñaaw silla moo ko wax ne sëriñ biram moonte ñun de dañoo wooroon Seexul Xadiim na ko ana lu leen ca jële ko wax ne sëriñ bi dañoo xam ne li ñu bëgg bëgg mën nga ñu koo defal ci ñuy bañ a xiif ak a mar seexul xaddiim na ko ak akasa na xam bu ngeen wooroon de ba fa sama xéewal googu bu ëllëgee ma baleen ak seen koor gi ba xam lu mën ak yéen waaye na leen leer na lépp lu ngeen doon ragal fegal naa leen ko ci sama xéewal googu ngeen xéewlu am na bisitim mu fab doomam ndax doomu rakkam la ñu tudde woon ko ko joxoon ko ko ñu koy wax sëriñ moor binta jaañ mu yónni ko ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci njaareem di ko wax ne boo demee nga wax ne sëriñ bi de man sëriñ barsàq ba mu teemaan nelaw moor binta jaañ moomu di turandoom di ndaw loolu mu yónni woon ci njaareem ci sëriñ tubaa seexul xaddim bi mu eggee njaareem wax ko sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim ne ko demal fi tollook jumaay njaareem ji nga tibb ca suuf indil ma bi sëriñ moor binta jaañ moomu demee nag tibb suuf ci kaala gi mu yoroon yit ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim di bind di far di bind di far ba mu yàgg mu jox ko ko ne ko soo demee nga ne yaa nga tuuba loolu moo waral lii di waa Touré Fass duñu denc ci tuuba foofa la ñuy denc ndax suuf sa seexul xaddim joxoon seen maam ja wala seen waajur wa mooy li ko waral moo tax lenn ca suuf sa ma ngi ci Touré ndogal di dëkkub waa jurub sëriñ Mor Binta Touré li ci des nag mu ngi ci dëkk bi mu goral boppam sanc ko di xaybar ñu gën koo xam ci Touré Fass Touré ndogal googu sax tax na lii di xalifay sëriñ Mor Binta Touré ñenn ñi foofu la ñuy tooge xalifa ñi ci des ci Touré Fass la dëkk yépp kat ci ndigalam la ñuy wéy te moom itam ak dundam ci ñaari dëkk yooyu la ëppoon sëriñ Mor Binta Touré ci bi muy waaj a tàggatoo ngir génn lii di àdduna juróom-ñaar fukki donga dajaleen na leen yitaat leen ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim jébbal leen ko mag ñi doon ko laaj lan moo tax sëriñ bi nga def lii mu leen di xamal ne dama yor ay ndaw muy doom yu ndaw laa yor te bugguma kat bu ëllëgee ñu fob mag ñi nga xam ne nii liggéey nañ ba am ngërëmul suñ boroom ñu leen di liggéey boo fi jógee lu waaye di def lu nga defal ko sa bopp ndax defal ma joo deful dara mën naa ñàkk te mag mu liggéey ba am ngërëmul yàlla gone gu tuuti di ko liggéey loo mën naa ñàkk ndax wóorul sax kon lii moo tax ma fob juróom-ñaar fukki taalibe yi yitaat leen ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ngir nag bu ma fi jógee bañ sama doom yi di leen liggéey loo mu des ci dëkk boobu di Xaybar di Ture Faas di liggéeyal ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim boole kook def maam Cerno Ibrahima Faati jëwriñ di ko liggéeyal di yar ak a jàngale booleeg mbooloo mi nekk ci ginnaawam mu leen di liggéeyal di leen xiiritim ci jaamu suñu boroom ak liggéeyal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nekk nag murit bu ràññee ko ci yoon wi jox cëritim mag ñi toppoon sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim def leen ay wóllëre ak lii di ay sëriñ ba ci foofu ci Turé Faas wala ci Xaybar gis naa mbindum mag ñu bari ndax Matlabul Fawzayni bu sëriñ Malik Basin si bind gis naa ko fa mbindum Cheikh Masamba Mbàkke mi rakku sëriñ Tuubaa Tuubaa gis naa ko fa mbindum cheikh Mamadul Moustapha gis naa ko fa mbindum cheikh Mamadul Faadal Mbàkke gis naa ko fa ci 1943 bi maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke génnee àdduna kayit wañ bindoon ña fekke woon bisub keroog ca denc ba gis naa ko fa ginnaaw bu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim boole woon ñaari mag yooyu ngir kóllëre ak jëwriñ gu Seexul Xaddiim waxoon Sëriñ Moor Binte Ture maam Cerno nekk ko ci moom loola itam seen ginnaaw ñoom ñaar seenu njaboot sàmmoon nañ ko mbindum ku baax ki Sëriñ Tuubaa Touba seexul xaddiim itam ma nga fa jëwartu bu seexul xaddiim bind gis naa ko fa ak yeneen ak yeneeni xasida yeneen bindum mag ñi itam ma nga foofa ca bërëb boobu ba nëga ni itam njaboot gaa ngay sàmm ndono loolo ci Touré Fass googu la nekk nag di fa liggéey ba ni mu génnee àdduna ci atum 1924 ci dëkk boobu itam lañ ko denc xaybar ñu gën koo xam ci Touré Fass fii mu nekk jamono ji foofu la nekkoon foofu sax la Sëriñ Mor Binta Touré dëkkoon waaye ci dafa am feebar bu metti bu amoon ci biir réew mi di feebar buñ tuddee feebaru pes feebar boobu nag taxoon na tubaab bi waxoon ne lii di dëkk bi dañ koy annulé ci carte nationale bi wa ilaa daan ñu def ba neen pexe ci la nag ñaareelu xalifaam bii di sëriñ moor tuuture toxal nag lii di dëkk bi yóbbu ko ci penkub dëkk bi ngir ñu mën a mucc ci feebaru pes boobu amoon ci 1930 kon xaybar jotoon nañ ko toxal ci penku bi dëkk bi dafa wéy nekk nag ci penkub dëkk bi ba ci Binta ca 1947 ba nag ci la ñaareelu xalifa sëriñ Mor Binta bi ñu doon wooye sëriñ Mor Tuut Touré yóbbu woon dëkk bi foofu génn àdduna ñetteelu xalifa sëriñ Mor Binta ture bi ñuy wax sëriñ Muhammadu Aminata Touré jëlewaat dëkk bi nag foofu mu nekkoon indiwaat ko nag fi ko sëriñ Mor Binta Touré sancoon ci atum 1948 kon dëkk bi toxal nañ ko indiwaat ko foofu la sëriñ Mor Binta Touré sancoon ngir dëkk bi nekk fi di Xaybar ñu gën koo xam ci Touré Fass sëriñ Mor Binta Touré mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu mu sancaloon boppam di Xaybar mu dëppoo woon ak bisub alxemis ñaar fukki fan benn ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1342 ci gàddaay gi alxemis ñaar fukki fan benn ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1342 ci gàddaay gi dëppoo muy jeudi 24 juillet 1924 jeudi 24 juillet 1924 ñu yëgal ko ko ko sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim boole ñaareeloon di maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke maam Thierno yónnee ndaw ci sëriñ Touba Seexul Xaddiim ñu waat bare ndaw ci njaareem ngir yëgal ko ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ñaari ndaw yi dajee foofu ci Seexul Xaddiim di ko wax na sa taalibe ba sëriñ moor Binta ture bu Xaybar génn na lii di àdduna mu leen di xamal ne yéen de yeex ngeen maa yëgal làquk sëriñ moor Binta Touré waaye alxuraanul karim gim dëkkoo woon ñëw na ba wax ma ne moom sëriñ Mor na fi tàgge ma jëmm jooju di Mor Binta Touré lii di julli juróomi tim ñëw na fi ba tàgge ma lii di Mor Binta ture kon ñetti ndaw ñëw nañ fi tàgge ma Mor Binta ture yéen ngeen doog a ñëw ñu daal di woolu na ku ñuy wax sëriñ Mérina Sill moo taxawu sëriñ Mor Binta Touré ñu jébbal ko boroomam ca bërëb bam fa defoon doon ca jaamu suñ boroom daa fa wàcce saa su ne kaamilub alxuraan ci dëkkam boobu mu sancoon di Xaybar Seexul Xadiim daana wax kii di sëriñ fekke keroog nag bi sëriñ Mor Binta Touré làqoo Seexul Xaddim mi ngi woon njaarim ci résidence surveillée waaye mag ñi fekke woon keroog ñu koy jébbal boroomam wax nañ ne am na lenn lu fa nekkoon ca jataay ba loo xam ne nii daal xamuñu lan la te lu leen yéem la kon daal jort nañ ne la Seexul Xaddim waxoon Mor Binta Touré ne ko bis buñ lay jébbal sa boroom danaa ko fekkee loolee raxoon ca denc ba moom la lu ndaw la te weex tàll ginnaaw buñ ko dencee ba noppi nag lañ ko mujjee gis gisuñu Seexul Xaddim gis nañ lu ñu ñaaw njort ne moom la kon lii moom xew na keroog bi ñu dencee sëriñ Mor Binta Touré ci Touré Fass sëriñ Mor Binta Touré foofee ñu ko denc sax muy bërëb boobee nga xam ne nii palaasu jullikaayam la woon bërëb la ba mu fonkoon ba ñagoon ko daa ci jaamu suñu boroom mu tedd mi bërëb boobu Seexul Xaddim wax na fa lu yéeme ndax ginnaaw bu sëriñ Mor Binta ture làqoo bam am lii di ay fan wala lu tollook weer Seexul Xaddim julli na ci jàkkay njaareem ji ba noppi sëlmal jàkkaar jàkkaarloog ñi nga xam ne ñi ñoo nekkoon keroog ca jullikaay ba di leen wax ne moor binta ture de foofee ñu ko denc suñu boroom xamal na ma ne képp koo xam ne nii jéggi nga gàllam boobee ngir dugg ci biir ziyaare ko jërul ngay sikki sàkke ne jéggi nga lii di siraat wax jooju seexul xaddim waxoon sax ci foofu ñu denc sëriñ moor binta ture tax na jamono jooju ture faas kenn xaju fa woon njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim itam ñoom desuñu ci ñëw barkeelu si wala ñëw jéggi si bant boobu wala gàll boobu ñu takku ci njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñëw nañ ci dëkk boobu cheikh mamadul moustapha mbàkke dem na fa cheikh mamadul faadal mbàkke dem na fa kii di cheikh abdul ahad mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim dem na fa kii di cheikh abdul xaadir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul dem na fa kii di cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim dem na fa ak ñeneen ak ñeneen ci njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim yi ay xalifaam nag nii la tëddee ci atum 1924 ba 1945 ku ñuy wax wax sëriñ daam moodu kumba mooy ki ko wuutu ci 1945 ba 1947 ñaareelu xalifa sëriñ moor binta ture mooy ku ñuy wax sëriñ moor tuut ture mooy ñaareelu xalifaam ñetteelu xalifa sëriñ moor binta ture ci atu 1947 ba 1951 ñu koy wax sëriñ moor aminata ture ñeenteelu xalifa sëriñ moor binta ture mooy ku ñuy wax sëriñ moor xari demba ture moo toog xalifa ci 1951 ba 1963 ñu koy wax sëriñ moor Mor Xari Demba Touré lii di doomu sëriñ Mor Binta Touré yu góor yi nag jeex tàkk ci kaw suuf sët yi tàmbulee wuutu seen maam ji sët bi njëkk a wuutu maamam mooy ku ñuy wax baay sëriñ Touré soxna mbay ibnu sëriñ daam kumba Touré mi njëkk a wuutu sëriñ Mor Binta Touré moo toog ci 1963 ba 1999 ñaareelu sët bi wuutu maamam di sëriñ moor Binta Touré mooy ku ñuy wax sëriñ Moodu Xari Touré ibnu sëriñ Mor Touré moo toog ci 1999 ba huit ñetteelu sët bi wuutu maamam mooy ku ñuy wax sëriñ Touba Touré ibnu sëriñ Mor Touré moo toog ci at mi di 2008 ba nëgëni xalifaam bii fi nekk itam di sëriñ Touba Touré ak jëwriñam bii fi nekk ñuy wax Baye sëriñ Touré yàlla na leen suñ borom taxawu te yàggal leen fi sëriñ Mor Binta Touré am na nag bis buñ koy fàttaliku ci dëkk boobu di Xaybar ñu gën koo xam ci Touré Fass ci atum 1988 lañ tàmbali lii di màggal gi jaarale ko ci sëtam bii di sëriñ Touré mu ànd maamam ji di maam sëriñ Touré tuut ñu koy fàttaliku ci bis bi mu génnoon àdduna di ñaar fukki fan ak benn ci weer wi di weeru tabaski saa bu jotee ci dëkk boobu di xaybar ñu gën koo xam ci Touré Fass ñu fàttaliku sëriñ Mor Binta Touré màggal gi nag lu ko jiitu bari na fu mu jaar ba nu mu egsee ci dëkk boobu di Touré Fass sëtam bii di bàyyi sëriñ Touré ibnu sëriñ Mor Aminata ture mi nekkoon ñetteelu xalifa sëriñ moor Binta Touré moo sos lii di màggal gi ci kaamilu alxuraan bu waajuram doon noon ci baayam te la gise ñaar fukki fukki fan benn ci weeru tabaski bi maamam ja génnoon àdduna ci 1988 nag ci la waxtaan ak njaboot gi ñu jàpp bis boobu nag di ko màggal màggal googu nag ci njàngum alxuraan kese la yam ci bëccëg gi am na beneen bis nag bu ñuy fàttaliku sëriñ moor Binta Touré foofu ci Touré Fass ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tabaski màggal googu nag guddi lay doon ak bëccëg ci teewaayu mbooleem njabootug sëriñ moor Binta ture gépp jëmu jooju di sëriñ moor Binta Touré yàlla nañu ko yàlla fayal yokk ay leeram xam te taas ñu ci barkeem ci dara jey bantam boobu seexul xaddiim waxoon ne képp koo xam ne nii jéggi nga ko jërul ngay sikki sàkke ne jéggi nga lii di siraat yal na yàlla jaarale ci dara jey bant boobee saafara jafe-jafe réew mi amin jafe-jafe réew mi amin jafe-jafe réew mi